الحمد لله الواحد القهار العزيز القفار مكبر الليل على النهار وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه إلى صراط مستقيم بوكي جولي بوكي سنغال نوغي لين دي نيو ci barab bu tedd bii nu baaxoo janoo ak yéen di Madiyana TV seen mbokkum taalibe Serigne Cheikh seen raaya ma dëkk Bayax dellu seeti ak yéen ci seen émission Saadul imaan di ñaan borom bi subhanahu wa la mu defal nu dégg ak topp def dégg ak topp nag xam nga mooy li nga xam ne mooy tax jaam bi am ci borom bi subhanahu wa la lamu namoon ndax nit mën naa dégg mbir mu baax te topput nit it mën na topp tuuti rek tayel daal di wàññeeku du gaaw a am lu baax kon euh, li am solo mooy daal doomu aadama bi dafay am décision mbir mu doon nga topp ko ba xam la ca ne dina tax nga mën ca jariñu te nag nu fas yéene ñëw ak yéen ci émission bi muy actualité fii jamono tollu saa bu fi masaa tollu bu ne rekk dañu dellu siwaat ci njàngalem Sayxul Xadiim xool moom la mu ca waxan ñu jëfe noonu mu mel ni noo ngi waajal ay élection présidentielle ci atum 2019 ndax xam nga ne noo ci mois de février te fim nekk sorina mu wara a doon le 24 février incha allahu li nuy jëkk a wax mooy kum doon ku ne nay ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa defal nu jàmm ci réew mi mbaa boog sax mu dollil nu jàmm ji réew mi am de jàmm moom am na fi ak sutura ak teraanga bu ñu nak moy nag mooy wax lu baax di séddante cër di demlante ak bokk di waxante lu rafet loolu mooy teraanga bu ko defee nag fii jamono toll ñu baree bare ci doomu aadama ñu doon ay marchandises yoo xam yu neex a la te neex jënd lool doomu ndax li waral loolu ñu bari dañoo xiif te xiif ba ñu xiif nag xaaruñu ba gis lu leew ñu lekk ko waaye lu leen romb rekk <clears throat> faalewu ñu medd faalewu ñu len te jamono yii ñu tollu nii a medd mi xaw naa bari lool te ñu bari nag seetuñu la ñu lekk nuñ ko mën a amee rek baax na muy fii jamono toll ñi nga xam ne ñooy xëccoo réew mi juróomi candidat yi kenn ku nekk soxla askan wi waaye askan wi ci jëmmi boppam it nañu xam ne ñoom ay citoyen lañ yu dëkk ci réew mi kenn ku nekk am na loola war ci boo dëkkee ci am réew muy kenn ku ne na nga xam ne ñi nga xam ne ñooy xëccoo réew mi ci réew mi lañ dëkk ñun ñi nu soxla dinu woo kenn ku ne bëgg mbooloo mi ñëw jàppale la ñoo ñoom ñépp ci réew mi leen dëkk kon li nu bëgg a wax mooy kenn ku nekk nanga xam ne say dëkkandoo ak say bokk maanaam bul nangu kenn jaxase la ak ñoom fii jamono toll nag kenn ku ne li war ci moom mooy lijjanti ba xam buro bi nga war a voté bu ñu àggee ca bis ba nga jël saw carte dem dugal ko fa nga ko war a dugal te bépp wax boo xam ne dafay waral coow yow bu ko fekkee boo watee nga boo watee ba noppi nga delluwaat sa kër te xam ne kat kenn ku ne ci doomu aadama yi ah Sëriñ Tuubaa de radiyallahu anhu la mu daan wax bu fekkente wane ñu nga ca rek jàmm rek kay xew werante du am mooy lan doomu aadama bu ne dafay war di jëf di yëngu di dunde aw ñaqam waaye nag la nga ñaqit nga jël ko te yem ca te bañ a jëlloo moomut kon jëf jël lañu wax ñaq jariñu bu fekkante we na lool day teg nañ ci doxiinu réew mi jàmm rekk ay xew waaye bu ko defee nag kon maa ngi wax ak ñeneen ñi nga xam ne Euh, dañ ñoo nuguwul yàlla dogal yàlla su borom subhanahu wa bu dogalee lim dogal bu la neexut da sonn mooy lan dangay gis ñoo xam ne ñoom innocent lañ ci mbir innocent mooy xamuñu ci dara rek ci mbir ñu ñëw jay la neexalab xaalis nga nangu di histoire dogoog say bokk dugg ci loo xamut ñu tëj la kaso amaana yow père de famille nga woon wala mère de famille wala soutien famille yooyu yépp doo ci calcul lenn diw laa faral tax laa werante xaañ xaañe wala ñu xaañ la yooyu dafa amul benn solo kenn koy daal sëñ Tuubaa moom la mu waxan dafa wax ne ku bëgg a jariñu àddina ak àllaaxira te bëgg a mucc tey ami xéewal yamal ci liggéey Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi xidmatin libni abdillahi jaali bi maa nuxta wa daafii maa nukfa min al mihani liggéeyal Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam de ku ci sax la nga bëgg yépp di nga ko am te la la nga ragal yépp dina la sori te la nga ragal bu la soree rek nga mucc ci fitna joj àddina la ak fitna yi àllaaxira kon li am solo daal moo di daam ñoo xam ne li yàlla suñu borom subhaanahu wa dogal bu la neexee rek nga noppal da nga gis koo xam ne coono ba dal yépp maanaam mooy diw neexuma kontar nguur te buur ba muy doon buur yàlla borom bi subhanahu wa taala moo ci kon nunguli li dogal dina taxa am nyak ñàkka nunguli li dogal nak dina taxa nyak jàmm waaye bu lipu lépp weesoo nak, ñi nga xam ne it maanaam ñoo yor suñ Euh, baat maanaam daal euh, père de la nation lañ koy wax ki nga xam ne moo yore réew mi askan wi yépp muy seen kilifa la jëkk ci doomu aadama àq yi nga xam ne maanaam euh, mu ngi ci aw loosam dund balay neex sécurité première mooy nit ñi war nañuy wér nit ñi war nañuy lekk lekk ak faju yooyu dafa war a yomb ci doomu aadama yi loolu ci sécurité la bokk parce que nit ñi koo gis ku ne mu ngay wéyale jàngoro waaye la ëpp nag ca ñoom ñi nga xam ne ñooy sunu njiit yi ñe leen war a ba wax leen li xew ci doomu aadama yi duñ leen wax li xew la leen neex la ñuy wax lañ leen di wax te buur it moom fee nga koy wax lu ko neex rek ngeen juboo mu mel ni loolu dañ ci gëlëm saa buñ gisee ku leen di wax dëgg ñu ne ko déw muy def la contre sa loolu lépp dafa doon loo xam ne nekkul li awu yoon ñoom ñoo war di nemmeeku seen bopp askan wi ndax am na ñoo xam ne ndax yenn roq yi ndax yenn yi àgg na fi seenum paj ñoom fu ñuy fajoo moo ndax mu ngi yomb ci ñoom déedéet moo ndax ñoom wàllu dund bi ndax mu ngi yomb ci ñoom waaw wala déet bu ca jógee nag seen wàllu njàng enseignement bi bu ko defee am réew jàng moo ko yor ak lekk ak faju yii mooy yi nga xam ne bu fekkee maanaam fexe nañ ba saytu ko ba mu aw yoon rek sécurité day dal di am waaye nag kenn ku nekk tamit ci ñi nga xam ne ñoo koy jàppale poste bañ la jox jàppal na yow lii ci nga mën a liggéeyale yàlla borom bi subhanahu wa taala gi nga jaar wet yu ne lañ ko mën a defee ndax alxuraan daf nu jàngal ne inna lazina amanu wa haajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim azamu darajatan inda allahi wa ulaika humul faizun xam nga fi mu ne suñ rythme bi senegal li fi dox mooy eh, xaw ma nag moom loolu nu mu tudd nit yow yàlla bind la loo am yàlla noomeel yàlla te bu ñuy wax ci wàllu politique mbaa mbirum àddina bu ñu tuddee yàlla ñu ne baari nga wax ji mel ni yàlla dafa am loo xam ne yoonam nekku ci yàlla lu mu doon lu ne moo koy attee yàlla lu mu doon yoonam a ngi ci bu dee lu jub yoonu yàlla nga ci bu dee lu jubut yoonu yàlla nga ndax alxuraan ba wut dara kon kenn ku bu jàppan poste bi mu yore ci dama na liggéeyal borom bi subhanahu wa taala ba am ngërëmul yàlla ci jaam ñi mooy na la yàlla gënal nit ñi looy wax na yàlla tax looy def na yàlla tax bu ko defee loolu mooy li nga xam ne tuba radiallahu anhu foofa la tegan ay mbiram mooy ki nga xam ne nag moom sëñ tuba fam nekkan démb mooy ki nga xam ben benn àq warut lo loosam wa ndax képp ku mas a rek la nga lool ci suñ borom subhaanahu wa taala fay na la loola ba nga jàpp ne sax sëriñ bi lii mu la jox jomb na la moo tax euh, bi nga xamee ne Maam Mor Anta Sali nelaw na ci atum 1882 xam naa ca feebar ndax ñenn ñi dañuy wax ne 1883 ñu denc ko ba ñëw ne sëñ Tuubaa radiyallahu anhu dañoo bëgg nga ñëw jege si ñu jàll sa baay bi te ànd ak yow dem dénk la Lat Joor fa ko sa baay féete woon nga féete ko fa moom it fa mu féete woon sa baay ba mu féete la fa ñu ñu ne ko ñëwal sëñ Tuubaa ñëw ba ci ginnaaw mbooloo mi mu taxaw ñu ne ko jàll si mu ne déedéet jéggi nit ñi du ay teggiin te fi mu ne nii bu ngeen waxee dinaa ci dégg te bu ma tontoo it di ngeen ci mën a dégg kon fii ñu ne ko dañu bëggan lii rek lañ bëgg jàll sa baay bi ànd ak yow dem ci Lat Joor dénk la Lat Joor fa Lat Joor féete woon sa baay mu féete la fa fa sa baay doon féete Lat Joor di ko conseiller di ko attel ci diine nga féete ko fa mu daldi euh, yaramam tàngere mu daldi jóg fatu keroon la bind xasida googu ñu wax xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taoz jawaisa toxni kullama hiini moom la sëñ Musaa Ka wax ci jësaw sa kóor ba xaadi moom jaxate naa ko irkan jàngal te jubli buntu woor yi Seex Bàmba xasbiyal allah ilaahu dëhran wala ilaha man yàlla doy ma te doyloo maa indakum yan faddu jàng naa ko billahi man ala lu tax may jàng jàngal ma saaruhut te kon eh, jàng ma saaruhut te kon doo jàng kon loolu la mu ca jublu mooy sëñ Tuubaa xam ne ak dund li tax yàlla borom bi subhaanahu wa taala nu fi mooy jaamu ko kon buñ ko bëggee détourné di ko gëmloo ne ànd ak Lat Joor ca la njariñ ne mu ne leen man daal ñu ngi may wax ne ma jengal jëm ci bunti buur yi kon de waxtu ne di ngay am ay tedd nga fa qultu asbiya rabbi waktafaytu bihi walastu radia gayra al ilmi wa diini wax nañ ma loolu ma ne leen man day doyloo naa sama borom bi subhanahu wa taala teyit doy na ma sëkk leneen lu dul diine awma ca lenn lu may gestu ba di ko bëgg sax kon loolu mooy programme bi nga xam ne sëñ tubaab bi mu ñëwee loolu la teg waaye loolu nag dañ ci daal di mën a gis ne ak doylu alxuraan def nu jàngal ne wa man yatawakkal na ala allahi fa huwa hasbuhu koo xam ne nag wàkkilu nga ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala xam ne moo yoon mbir yépp yàlla doy la sëkk ndax dina la féete foo xam ne moom yàlla doo geestu di wuteti leneen bu ko defee <clears throat> loolu mu doon loo xam ne lu am solo waaye keroog ba Serigne Touba radiyallahu anhu waxee loolu keroog bari na ñoo xam ne si yenu naw dafa dog ndax loolu la ñëwoon ngéej ne ko seew kaay jege buur wax nañ ne am na ci koo xam ne nee na uh wallaay waxan nañ ko ne doomi jaara bu sa jéeg Mor Anta Sali maanaam bopp bi feesut daa doonal gone rek fees feeñul woon waaye bi mu doonee mag loolu fee feeñ na kii de xam ngeen ne nitewut anañ yow noo mën a ñu ne la jege ji buur ngay joxe ngant parce que boobu loolu rekk lañ gisan moo tax am na geneen xasidaam sëñ baa ngi wax na xaalu safihun li hubbi xaalixi maliki walam akun lil baraya astaki darari nee nañ day man muudu mbakke ab ah, dof laa ngir lan li ma demul ci kenn di ko tawat mbiri àdduna waaye li nga xamante ne bii mooy mbiri àdduna koom mii nga xam ne demuma ci kenn di ko jàmbat naan dama ñàkk naa dama bëggan ku ma dimbali ci nangam ndegem defuma li moo tax ñu ne ab dof la ndax kuy dund di nga bëgg dara moo tax sëñ bi wax ne waaw man ñi nga xam ne saa borom yàlla moo leen bind bind ma jaamuloo leen yàlla man ñu jaamuloo ma yàlla ma war di wakkilu ci yàlla ñoom ñu war a ne wakkilu ci yàlla defatuñu ko ñu bëgg nag man ma bàyyi fi borom bi subhanahu wa taala di wakkilu ci koo xam ne mënalut boppam dara ana ufawidu ahwaali liman ajasu an haali anfusihim ajizal masakini aw kayfa yabaxasu ne xubul xutaami ila jiwaari man raw du sayaatin waa man naka laay jële samay mbir di ko teg ci ñi nga xamante loxo yi ñi nga xamante ne bii ñoom kat boo xoolee seen mbir mën a luñ seen bopp dara lottu nañ ci seen mbiri bopp ni gumba lotte ci maanaam lijjanti boppam mbaa miskin nim lotte ci lijjanti boppam ba dañ koy dimbali mu door a mën a jàll ñii ngeen ma wax ne demal aju ci ñoom ñoom lii moo leen dal waaw man nag kon naka laay jóge man ahmadul xadim borom bi subhanahu wa taala sant ma ma jaamu ko ma jóg di woon jaamu yàlla gi ginnaaw sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ak faratay suñ borom yi ne damay lëññutu poñaxtiitum àdduna di ko lijjanti loolu jomb naa ko rus naa ko kon nag ndegam nii rekk la deme dama bëgg yéen ngeen bàyyi ma ci ni may def te li ngeen nekkit yàqaluma leen ci lenn waaye daal lu mën a xew man borom bi subhanahu wa daal lim ma digg rekk laay def tey du ma mas a def lenn loo xam ne àndul ak ndigal ndax kat laa tabaalu sayan bi gayri izni fal isnu sartun li xabooli sani man ndigal ma fi andi ci daaru duniyaa man ahmadul xadim kon nag yàlla su borom subhanahu wa taala moo ma jox ndigal lii ma nekk tarfatal ayni ci li ma borom bi subhanahu wa taala sant duma ci bàyyi dara te duma ci laamisoo lenn koo xam ne dañ ma ko bëgg a yàqal kon nag ndegam nii la demee na ngeen xam ne nag àdduna lii rekk a fi nekk teraanga ji nga xam ne sa borom yàlla tudd na ko ci yow lu mu yàgg yàgg yàgg di nga ci jot kon mët a ñaawal sab der ngir wut teraanga waaye li nga xam ne it borom bi subhanahu wa la tudd ko ci yow mët a yàq sab ndax loo teste si teste si du tax nga jot ci mu ngay wax ci yi fa kullu man talaba maalam yuxlaqi taiba tuula nga lam yurzaqi képp koo xam nga yaa ngi doñ doñi guddi ak bëccëg di bëgg loo xam ne sa borom yàlla tudd ko mbaa bu ko tuddee waxtu wa jotagut sëñ Tuubaa nee nga bëgg ko sàkkul sa bopp di nga sonn sa diirub jamono sonal sa bopp te la ngay lijjanti du tax mukk mukk mukk ñu teg ko ci say loxo kon nag xiroo bii ak ñaayoo bi nga xam ne waa réew mi fi nekk toll nañ ci loolu mooy ñi nga xam ne maanaam koomum àdduna dafa lekk seen xol jomb ñoo ñaaw bañuñu ku leen joxoñ li rekk moo fi nekk kon li am solo mooy nit ki bu fekkee bëgg naa am ndimbal nay xool fi muy teg ab tànkam ndax ab jullit nag wa ma xalaqtul na wal insa illa li ya'buduni borom bi subhaanahu wa nee na àdduna gi nu nekk gi nga nekk yéen doomu aadama yi nun yàlla lu dul ngeen jaamunu taxut nu indi leen fi kon soxlawuma ku togg saw ñam ne danga may yekkal kon fa ma la ko sante mooy lii ma lay xéewale man yàlla sa boroom dee ko delloowaat ci jaam ñi te kenn ku ne nag ña nga jaboote nga saytu seen mbir ba bu ëllëgee maanaam say seen say dossier yaag ñoom ba ma ko lijjanti mu mën a yomb xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nanu ne kullukum raain kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la wa kullu raain mas'ulun an yi waaye sàmm bu ne nag boo sàmmee ba ngoon nag di nga jofalkat di nga ñibbi fa nga yeewoon jur ga dinga fa dellu dinañ xool jur ga ndax benn jur manqué na ci wala genn jur ah ruur na ci toolub jàmbur loolu lépp nañ ko lijjanti ak yow kon liñ bëgg a wax mooy kenn ku nekk dafa am ab lijjanti boo xam ne ñi nga saytu ci say njaboot yaag ñoom war nga fexe ba yàlla gënal la njaboot gi ñoom it war nga leen a teg ci yoon woo xam ne maanaam lu dul yàlla duñ ko gis ah li nag bu fekkee nag taxawuñu ci lu dul ñu bëgg a jël suñ bopp boyal bakkan yi rekk ne ci dunduk àddina gi rekk suñ waxtaan foo ko fekk buñ jógee ca làmb ja ñoo ca politique ba buñ jógee ca politique ba ñoo ca théâtre ba buñ jógee ca théâtre ba ñoo ca film ya buñ jógee ca film ya ñoo ngi ca débat ya ca garam place mais dund gi lan lañ ci sedd yàlla borom bi subhanahu wa taala bàyyiwuñ ko ci fenn xel kenn ku la bëgg dund nu mu nu ko neexee lu la neex wax fu la neex yend fu la neex fanaan ku la gën nga xas ko tuumaal askor wax ci moom lu dul dëgg ngi yàq ab deram ci média yi jàpp ne boo faatoo sa ginnaaw na sedd sa ginaaw du sedd kon ah kenn ku ne daal dama bëgg ñu xam ne doomu aadama yi nekkul ne ñépp euh, am koom rek dañu war a am ci àdduna du noonu de am na ñoo xam ne fii ci daaru duniya seen dara nekkalu leen fi ndax yàlla moo gën a xam jaamam bi alxuraan nee na nun yàlla xam nañu xam nañ leen bu baax a baax a baax kenn ku ne la mu ne ngéej ci am koom ci ay xéewal wàllu wërsëg kenn ku ne buñ ko joxan la mu bëgg ba mu doy sëkk la baxaw fil ardi di nga gis ñoo xam ne dañuy bew ci kaw suuf si ndax am na ñoo xam ne fi mu ne nii la tax ñu yaru akus néew nekkuñu ci yenn yi amuñu yenn maanaam yenn moyens yi rek moo tax ñu toog ne rugu rek yaru waaye bu leen yàlla su borom subhanahu wa taala dénkoon tey ni ay xéewal rek nga gis maanaam fenn fu nekk ñu ne fa lay cëpp ndax saa boo amee ay moyen koo woo mu wuy la koo waxal mu faale la buntu boo fëgg ñu ubbil la koo dig mu gëm ko bu ko defee nag la ngay daal di def rek mooy fa nga toll woon da koy daal di xeeb yaa ngi ci yeneen barab wuti ay appartement di dox yoon wu yàlla yëgut ay moyen daanaka ki nga xam ne teguwut ci ak jub ci lii rek la ko seytaane di xiir mu topp di yafal bakkanam rek jàpp ne moo ci nekk kon ki ne ci jàmm nag mooy ki nga xam ne xam na ne xel ku dund ba déwén di nga lekk ba déwén bu ko defee nag koom mi moom lu mu gën a bari te dara lewu ci ay góom dong la lay jural te nag njariñ loo fekkee njariñ loo fekk kon réew mi euh, nañ leen di ñaan yàlla suñu borom gën fee dolli jàmm bu baax a baax nañ leen ñaan yàlla suñu borom gën fee dolli jàmm ndax kat jàmm mooy li nga xam ne mooy li am solo kon nag kenn ku nekk ah na bàyyi xel ci ne da am ñoo yilif am lu la war ci ñoom am ñoom it lu leen war ci yow waaye na nga jiital ne kenn ku ne daal. na nga waxtaan ak sa ñooñ bu bis ba jotee nga encadré leen ñi ci am ay kart dem wate ji ñi ci amut ay carte nañ toog ci kër ga loolu mooy li am solo bu ko defee nag la ngay dem di werantee def lu sa yoon ne wut wax lu jaadu wut ñuy jàpp di yóbbu te amaana am nga ay bokk fa nga toll ca ñoom ñu di la misère rek xalaat àq la joo leen amal kon nag li am solo mooy daal na ngeen yaraat njaboot gi te mag ñi feek wonuñu ndaw ñi aw yoon ndaw ñi duñ mën a yaru ndax gone toujours ka muy nekkal toujours kooka mooy idolam la mu gis ñu di ko def ak la mu gis ñu di ko wax rek loola lay jàpp ne moo moo jàdd kon sun leader yi nga xam ne ñoo fi nekk ay ñi leen fi nekkal nit boo ko bëggee dimbali ba nekkee ci lu dul noonu danga koy conseiller ne ko sa waaye nii de baax na nii baaxul waaye li ñu gëm daal man gisaguma kenn koo xam ne da ngay wax rek rek rek rek te maanaam daanaka doo waxe bakkan ci wàllu nguur ndax fi mu ne sa leader bu juumee doonu nga ne juum na buñ ko waxee njuum teem nga jàpp ne dañ koo noonu yow it ki nga xam ne du sa leader te nekkagul ci pouvoir bi lu mu wax nga wàqi lu mu gas nga wàqi suul lool du tax am réew a jag nañ leen doon benn ki def lu rafet nañ la def na lu rafet bu juumee nañ xam ne démb baaxoon na kon ñuy am tolerance tey moytu wax yu bon yi xam naa noo ngi wàccee fii sunu kàddu ci seen émission bi ñuy wax Zadul imaan di ñaan borom bi subhanahu wa taala dafa dégg ak topp di dollee ñaane sëñ Mouhamadul Muntaxa sa borom yàlla dolli ko wéral ak sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke borom euh, guy Madiyaana yàlla samborom yàlla defal ko jàmm sàmm ko sàmmal ko njabootu kër gu àll borom barab bi it yàlla sa borom yàlla sàmm ko ak techniciens yi ñu fi nekk ñëpp. di wacc sun kaddu li wax ne wa akhiru dawana بسم الله إفن الأدار الله سفي بقاء الله بسم الله إفن الأدار يا الله سفي